Ibra Fall ab Ablaye Coumba Daaro ma sekk Lat Joor euh, di rafetlu seen ñëw bi ndax li ngeen def dafa am solo ndax réew mi boo gisee daanaka doxul na mu war a doxee mooy dañoo bàyyi cosaan te cosaan mooy lépp histoire boo ko seet que réew na ci Sénégal amatu fi fii ngeen ñëw nag ki fi tëdd mooy Saxeer Fatma fan ma a ah, nekkoon ki nga xam ne nii buñ koy seet nitug yàlla la parce que dem nañ ba ni wàllu la ndax bi mu demee ba nekk ci mbirum ceddo da ko mujj bàyyi dem fekki sëriñ Matar Koki Matar Ndoumbe mu mag ma ba mu fay ñëw mbooloo la àndal ak gàngooram waaye ba ñëwee ne ko damaa fas yéene tuub si nit ñi comme la ñuy wax duñ bàyyi weer ci benn fan dafa am ñu ne ko kii jóg ak mbooloo mii mu àndal ak góor yi mu àndal ak fetalam yii ñëw ne day tuub si tuub si wut day jaar si ko kooki ne ko léegi daal li ma lay nangul sa tuub mooy ngànnaay yeeg alal jeeg li nga yor yëpp nga jox ma ko mu nangu ca loolee ba mu ko defee mu ne fa ay at jàng fa alxuraan ba wàcc ko ba fa jógee mu yebal ko avant muy ñëw fii kër mu lu ma xari ji la njëkk Kër Mouroumbe fii ça fait à peine 7 kilomètres boobu ñëwee Kër Mouroumbe la fa diir ñëw nag sanc fii muy Cilmaxa léegi indi turu Cilmaxa yi ba mu ñëwee dana Cilmaxa Jóob maanaam gumba naa Cilmaxa naa ci lépp lu neexutul yàlla daal di sanc fii nekk fi akuk njabootam bi nga xamee ne nii nekk na fi ba demit fii lañ ko denc am na ñu bari ñoo it fii lañ ko denc am na doomi Lat Joor joo xam ne fii lañ ko denc muy Astou Diop Magoumba fii lañ ko denc ak ñu bari ba mu paree ci loolu ñu denc ko fi suñ waa Cheikh Fatma sama mag ñu bari fii lañ leen denc ñu bari daal fii ci famille bi ndax booba dem Touba jafe na fii lañ leen denc caatum Lat mu Astou Diop moomu ñu fi denc Astou Diop Magoumba moom ci boppam moo ma nettali ne ma Lat Joor ne ma sans bàyyi alar bu jimi muy jógee fii di dem deqale yoor yoor bu ñuy dem fii ci yoon forage bi am na benn euh, daqaar gu fa nekkoon te terrain boobu la ne ma fa la samp xeej ba daal di ne damaa bëgg képp ku ragal dee nga dëpp. Mhm. nee na ma booba moom maire bi ci boppam war naa am ñaar fukki at waaye nee na boobu doomi buur lu teel a sëy fa la samp xeej ba tàggatoo ak ñoom ànd ak ñoom wuti Mbàkke Kajoor kon ñu dellu si fii bi nga xamee loolu am na genn góor moo fa nekkoon gu ñuy wax maam Mor Soxna Diop. maam moo Soxna Diop moom it saa fan ma moo jur bàyyam amul yalla bu nekkoon fii boobu fi ay mbént ñu ngi fi daan fi ñëw sax am na mbént ñu mag gu fi noonu goo xam ne boo ñëwee ci mbént ñi da nga fay fekk ay ak yooyu ñu ci la Joor daan def euh, wékk ngànnaay yi booba it Joor la daan jaar fii di jàll waaye booba ci lu ma sa njuguñ ko nii daal la mbir mi tëddee saa xewet Fatma fii la ne. comme ni ma la wax ci moom rek nekkul nit ku baax Sakho Fatma moom maanaam maami la Sakho ma moo jur Madoune Sakho Wer ma jur Madoune Sakho Wer jur Sakho Wer soxna Mbaye Sakho soxna Mbaye jur Lat Joor noonu la demee kon dafa mel ni bu ñu nee dafa tuub waaw ñii ni Lat Joor dafa judd ci njullit waaw kon dafa mel ni biral nga ni waaw Lat Joor dafa judd ci njullit foofu dinaa la ci dikkal Lat Joor ñi naan dafa nekkoon ceddoo loolu amul dëkk bu ñuy wax Longhor Mbay mi ngi fii 7 kilomètres mm-hmm. man nekk naa fa boo fa ñëwee am na genn xewar boo xam ne fala mab Maba Joxu nekkoon fa lañ daan jàng fa lañ defoon daara ji léegi boo ko benn poto lañ fa def fa la Lat Joor xamante ak Maba Joxu ñu bari dañoo yaakaar na Lat Joor daa ju fekk Maba Joxu déedéet Lat Joor ah, sox soxna soxna Mbay mii ndarem waa Longhor Mbay la waa Longhor Mbay la ba mu ñëwee Longhor Mbay doo ko fa indaale fa la fekk Maba Diakhou loolu lettre moomu moo nekkoon ndey ndey daara la euh, euh, Maba Diakhou hmm. ndax soxna Mbay moo jur soxna Mbay muy waa Longhor Lat Joor fa alxuraan jàng na fa alxuraan ba wattu alxuraan faa jóge dugg ci loolu mu dugg fa la xamante ak Maba Diakhou ñii wax naan Lat Joor ceddo la woon Lat Joor Ceddo ga la ko ci yóbbu mooy néegum ndayam paaleen ga moo ko ci yóbbu. foofu nu mu fa demee woon. paaleen ga ngoone laatir ko jur ngoone laatir moom moo yóbbu Lat Joor ci paaleen ga waaye kër baayam Saaxewer Faat moom moom mu nga xam ne mooy maamam tëdd fii ak mënul Saaxewer Saaxewer soxna Mbay mu ko jur ñoom ñëpp ay wattukatu alxuraan lañu wattu alxuraan lañu ñoom ñëpp waaw Saaxewer Faat ma mii lii ngeen def noonu lañ koy rafetlu. ndax euh, état ci boppam dafa war ñu mel nii fu ñu tëdd ñu defar leen defar leen fa loo xam ne nii ku fa ñëw xool ko gis ko xam ne ñii nitu démb la ñu parce que ñoom démb bi ñu fi nekkee tam dañ doon liggéeyal yàlla mais dañ doon liggéeyal tam pour not gënu nasaraan bi doon not loolu lañ jëkkoon waaw dafa mel ni foofu sax la ñuy daaneeli mm-hmm. waaye bu ñu xoolee béréb bi ni mu mel xool histoire bi nga indi ci sunu maam Lat Joor fi mu jaar euh, soxna euh, saaxawar soxna may mi nga xam ne moo tëdd fii di maam ci Lat Joor saaxawar fii di maam ci Lat Joor nga xam ni bu ñuy wax histoire u Sénégal démb dañ ko tënkoon ci ay ñeenti baat mooy jom mooy ngor mooy fit mooy fulla mooy fayda mooy sàmm kóllëre te loolu tey dafa mel ni dafa réer ci jamono réer na waaye nag kon mag ñu mel ni yéen suñ leen amee dañ leen di ñaanal yàlla waaye li ngeen wax nag dëgg la béréb bu mel nii nga xam ne tey nag yi fu leen jaar fu ñu neex jaar dugg leen amu fi lenn loo nga xamante ni si nekk na fi ba ñu war a mën a jàpp ni fii tey boo fi ñëwee boo xoolee di nga xam ni lii mooy histoire bi kon nag ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yore caada ji ci réew mi ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ñu niti caada yi nañu fexe béréb bii ñu defaraat ko def ko mu nekk benn monument boo nga xamante ni si noonu ñu ko waa Ngaye Mékhé xalaatee mairie ba xalaat ko doomi ngay xalaat ni dañuy organiser benn festival bu mag mois de décembre e, festival boobu la tax a jóg mooy dekkal lu mel nii ànd ak kajoor mooy tudd ñu ko festival du kajoor loola lañ ci jublu mooy képp kuy doomu kajoor képp ku doon liggéey yëngatu ci mbirum caada ñi liggéey ci mbirum artisanat xam nga tey buñ naan artisanat dañuy wax ni euh, dàllu ngaay dàllu ngaay mais loolu ña xamul ñoo wax loolu waaye tey journaliste yi ñu àndal woon nañ leen ni Lat Joor ba muy xeex ak tubaab bi mëq doom ya mu daan defar yëpp waa Kajoor ñoo ko daan defar dàll ya waa Kajoor la tegu fas ya waa Kajoor la njumtuwaay yëpp ak lañ daan liggéey ca jigéen ñi daan liggéey ca waañ waak lépp euh, Kajoor lañ ko daan liggéey kon ñooñu dañoo nekkoon ay ouvrier kon Kajoor li mu xamoon démb mooy liggéey Kajoor li mu xamoon démb mooy fonk wayjur fonk dëkkandoo fonk njabootam ci loolu la ñu bëgg a liggéeyaat loo nga xamante ni si réew mi dina ko mën a jëriñoo caare gi dina ko mën a jëriñoo ñu am yaakaar ci ni ñi nga xamante ni si ñoo ñuy seetaan ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi dañu bàyyi xel bu baax a baax béréb bi ñu nekk ndax béréb la boo xam ne war nañ ko defaraat kon ñu leen di gërëm leen sant. am naa benn benn